ànd ak télé bi nga xam ne moom moo xew ci jamono muy Mindiss TV nekk télé boo xam ne nii télé bu exceptionnel la nekk télé bu bees tàkk nga xam ne ni moo yor bépp information bu leer bu baax bu rafet moom moo ko yor teewal leen fii nag tey ànd ak Christa ñoom bu defal leen benn émission bu ndaw fii ci mairie bu Fatick à propos ñaari séminaire yi nga xam deux jours de maire bu Fatick ànd ak tata aji nga xam ne sama tata bu baax la boo xam ne ni moom moo ma yar presque fee ci de santé bu Fatick donc ma la doon laaj tata aji tey naka nga def ci pour deux jours de formation yi nga xam ne ni moom ngeen amoon tey ma bëggoon xam formation bi sujet bi lan la ak lan moo waral formation bi tata aji vous avez la asalaamaaleykum maa ngi leen bu baax di kontaan ci seen invitation bi. parce que tey jii dafa nekkoon loo xamante ne dañuy woowoon fii ci mairie Fatick fi nga xamante ne tey jii moo nekk euh, bërëb boo xamante ne muy gëstu nag ci lu bari xam ne daal comme am na loo xam ne dafa xew muy dégg bi nga xamante ne fan yii ci lañ nekkoon ñu ñëwaat nañ ci yokk tey paludisme ñu kon nañ ko def deux kii yaa fi woon yëf ñun ñëpp ñu fi woon ñu ne daal nañ leen waxtaan ci loolu comme mu nekk ñaari jàngoro yoo xam ne dafa xawoon na daal loolu nañ ci waxtaan tey meer gannaaw ba ko meer liggéey ñu di ci moom na ko ko yëgee lu moom mooy jàpp na moom daf ci war a jàpp yooyu te bëggoon xam ne man ngeen ci tënk ba xam am nga ay mesures de prévention yoo xamante ne dina xelaat wala dina yeneen ak yeneen yoo xam ne moom moo leen formé leen bu ñu formé nii nañ dem ci askan bi dem jege ji leen jéem leen a wax lan mooy indi denk bi parce que liy indi dégg bi comme man dafa nekk yoon boo xam ne ba dara kan mooy dox te ci biir yi dox la bëgg te biir askan bi nga xamante ne surtout jigéen ñi ñoom ñoo yore dox ñu toog ci waaj ñoom ñoom ñooy def dañuy faral faral di jël ndox di ko tàkk pour nekk ci di ci dund daal léegi loolu moo waral woon ñu dugg ci biir nit ñi pour dem waxtaanal leen. wax xamal lañ ne leen loolu ngeen di yore ci biir kër gi moom la dégg di moom mooy yoon bi nga xamante ne moom ay def di loolu moo waral ñun suñu tànk ci biir ci ko ñoom te defee loolu ko éviter. d'accord te daal kon xale yi ak femmes yi ci Denko. en tant que bàjjen surtout dem nañ ci ñoom dañu dolli si waat ñun dañu demoon. def jéego yooyu am waa centre de santé ak BCCF la ñu léegi maire nag bi mu yëgee xam ne moom comme moom mooy le premier magistrat de la ville mu ne jàpp na ne moom daf ci war a dugal loxo dafa indiwaat formation bi pour yokk ko moom moo waral suñu teewaay tey léegi d'accord en tant que bajenu gox mu jota ak yi donc yow lan la ñuy wax ci suñu seen suñu télévision bi nga xam ne nii moom lañ ñu teg li ngeen ñaar yi nga xam ne yéen a ngi ko ngeen naan bu ñaan ci télé bi dama koy def léegi waaye am lu des ñu mën ko yokkal ci li ma doon wax léegi ndax bi ñu teewee fii ba pare dañu def dañu tëral benn plan d'action a limal ñoom ñëpp tey dañoo jóg ne dañoo sóob te jàpp naa ne booy jàpp am keneen ku ñëw ne la jàppal ma jàpp dafay tax mu gën a baax léegi def nañ fi tey plan d'action boo xamante ne ñu fi teewal ñooñu mën a limal ñoom bokk na ci. tëral nañ yoo xamante ne jàpp naa loolu su fekkee ne quartier bu nekk dañoo fas yéene jàkkaarloo quartier yi saytu ko ba dem nañ sax ci biir wax ba ni dañoo bëgg dem fii ak ñu tànn quartier bi gën a naa ne jàpp nañ ne loolu dina dem kanam. dina dafay bëgg jogante suñ demee ba wax ci loolu ci quartier yi rek jogante ñëw na kon set dina ñëw incha allah bëgg nañ daal tàggoo ak nga xamante ne mooy indi yoo ci biir Fatick. ci bësu tey jii loolu lañu dégg euh, li ma laaj léegi nag ma ciy kontaan bu baax ay ndaw ngeen te ndaw dañuy faral di ko jox loo xamante ne daf gis boppam li ñuy ñaan mooy yàlla gis ci benn lay commencé benn mu commencé ñu ngi ñaan yàlla yàlla du ngeen rëccu la ngeen dafa ñàkk di ñaan li muy ñëw léegi dégg ngeen di wax ci man lu mu wax ci man lu ko rawale ci moom ndax dafa sincère ku nekk xam nga kan mooy gañu xol bi rafet na yéene na ñëpp jàmm lu mu la bëgg a wax wax la ko léegi pare ci kooku mooy jullit maa ngi koy nuyuwaale de passage ñaanal leen yàlla lii ngeen dugg yal na ngeen bu leen rëccu li ngeen ci doon duggee ci barke Seydina Muhammad toog ba rajo yi bare bare ba kenn ku nekk yor ci télé ci yéen ci seen loxo. ko yóbbu yàlla mën na ko. mën na ko yàlla def. merci beaucoup wax ci